asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam yéene safoo chaîne bi di lu Buzz HD tey jii dañuy doorte ki nga xam ni moo di kenn biis nekk artiste bi nga xam ni mën nañ ne sax artiste planétaire la ngir kat ak jàmbaareem ngir kat ak pastéefam ngir kat ak dogom donte jamono gi mu ngi yëngu bu baax a baax ci milieu politique waaye gis nañu a chaque fois muy poste leen ci poste ak di dinget kii di Youssou rawat na famille famille Ndourène bile tey ji nag dañaa gis ak beneen poste bi nga xam ne defee na ko ngir kat xamle bu baax a baax ginnaaw li nga xam ni moo génn ci benn benn euh, magasin bi nga xam ni moo di Rolling Stone nekk benn ak mbir bi nga xam ni artistes yu bëri doon nañ dajee foofu kat ngir def lenn ci ay compétence yu ni mel tey jii artiste bi di wuyu tur Youssou Ndour jël li nga xam ni moo di 69e place boobule mu nekk mbégte bi nga xam ni lenn ci sénégalais ñu ngi koy ñu ngi koy savourer bu baax ak di am te contentement boobu ginnaaw jee loolu sax moom mi ne di ki nga xam ni moo di kenn Biz dañaa gis ni bu baax lu mu poste la ak di ko di ko bind bind yi nga xam ni lu yéeme la ba sax egg na naan ñii ñaari artiste planétaire yi lée di wuyeeturu Bob Marley ak ki nga xam ni moo di Michael Jackson duñu benn moroomu bojo bojo ndax kat loolu ak li nga xam ni moom la magazine bi lay xamle mooy kii di Youssou Ndour dafa leen raw ci place ki nga xam ni moo di Michael Jackson ak ki nga xam ni moo di Bob Marley moom mi nag di kenn bis gën na xamle bu baax ci post bi mu posté di xamle ni kii di Michael Jackson ak Bob Marley duñu moroomu benn bojo bojo di xamle loolu ci bu baax a baax muy dinget ki nga xam ni moo di roi du mbalax di Youssou nduur waaye kat gis nañu lu ñu jaaxal Sénégal giléem mooy mbir bi nga xam ni moom mi leen kon bis kuy xam ñi di famille njuréen ndax kat gis nañu à chaque fois lu am ci jëmale ci njuréen bi dañ leen dal bu baax a baax gis nañu li nga xam ni moo di coupe du monde bi nu mu fa demee woon moom mi leen di kenn bis génn xamle bonte peuple bi yëpp a ngi soxla ay li nga xam ni moo di mu génn way ndax kat wayam ku jig Sénégal la loolu le ba tax la sax mu xam xamle pour mu way faaw ki nga xam ni moo di roi di mbalax xëcc retiré li nga xam ni moo di wayam boobule mu nekk mbir yi nga xam ni doy na war moom mi leen kenn bis nag fi mu teg tànk tànkam ba tax sax bu ne mu commencé di song ñi nga xam ne ñoo di famille famille Nureen nekk na mbir mi nga xam ne sénégalais loolu la ñuy laaj lan moo xew lan moo nekk ci ginnaaw tey jii ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko moom mi nga xam ni moo fi bokk na ci ñi indi tëggum bool fii ci Sénégal tey jii tëggum bool boobulee mun nañ ne moom mee lañ ko ci lan ñi ñi nga xam ni ñoo di ay étudiants yi nekk fii ci Bignona Dakar Ziguinchor bile waaye féetewoo fii ci nga xam ni moo di université Dakar gi nekk fi nga xam ne jamono googu ñoom ñi lay utaloon li nga xam moo di ak immeuble fii ci Dakar Plateau ki ko defoon maire sortant bi du witru Abdoulaye Baldé ñoom ñi leen di étudiants yi maire ba fut la xam le jëmale ni Ousmane Sonko mi respectéwul benn yoon seen ak ak yelef ndax kat bi le mën nañ ne dafa jeex waaye moom mi le Sonko nangul benn yoon renouveler li le son contrat ba tax na sax les étudiants yi le génn boobu di men manifesté wu ak di mettre lu taxawaay bi nga xam ne kii di Ousmane Sonko am na ko ngir kat gu nar a kàmb étudiants yi xamle ko di dox dugg ci sax ba lenn ci école yi buñ ne jànguñu ndax kat moom mi lee li étudiants yoolee rawat na xam ne nañ 48 heures de grève yi nga xam ne di Ousmane Sonko wàññeekuwaat ci ginnaaw ndax immobile bii duñ nangu mukk ñu leen fay génneel te ngi ngir génne leen bile immobile mu nekk mbir yi nga xam ni étudiants yi méttilu nañ ko ñoom ñi lee étudiants yi sax ci jamono ci ginnaaw génnoon nañ bu baax ak di jéggalu kii di Ousmane Sonko ngir mu baal leen ci leen li nga xam ni gis nañu defee nañ ko dara nekkul leader politique tey jii kat bi ñu gisaatee ñeelee étudiants yooyu wañeekuwaat defaat li ni mel dina nekk luy jaaxal sénégalais yi tey jii bu ñu ñëwee ki nga xam ni moo di Adji saar moom mi ne di Adji Sarr ginnaaw ay kàddu yi nga xam ni ñu ko tuddee ko troisième audio wala quatrième audio génn di waxtaan ak kii di bàyyi Mbaye MC Niass di sëriñam bile Adji Sarr xam na ne lu bëri ci lii audio yi ba sax dem di ci tudd ki nga xam ni moo di bàyyi jàppale bi ñu ko bëggoon jàppale pour mu génn dëkk bi dem fii New York États-Unis ngir kat amal fa ak togg ni ko am fa ak bàyyeekoom nekk foofu dund fa beneen dundam Mollah Morgun moo publié li ni mel vocal bi lee bi di xam ni jamono gi mu ngi tas réseaux sociaux yi bu baax a baax moom mel di MC Niass dugg na ci xeex bi ndax kan mu ngi naan am Adji Sarr fexeel nga gëtëm bu baax ñii ba leen gëtëmee dinañ la jox li nga bëgg ba tax sax man dinaa la yóbbu dinañ la jàppale ba nga dem fii di États-Unis mu nekk bi yi nga xam ni yéeme na moom mi la Adji sar sax àdduna ci la mbir xam ne kii di ki nga xam ni mooy Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mission boobu ku kuñ ko joxoon la ngir kat mu matale lu mel kat di classe kii di Ousmane Sonko ak viol beeg ak yi ci aju yëpp waaye kat dañaa gis ni xaalis bu bari bi ñu ko jox da ci ësee bu baax a baax a baax wooy leen di abonné fi nga xam ni moo di lu Buzz HD ndax kat lu fi information ak i xibaar ñu leen koy indil asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.